أخمر رجال lim njëkk ji ko moo di njaboot di yoonu ma yi yoonu xadim mu jëmee ay jëf ak i mbindam ak i taxawaay ci lu leen di boole mu nekk benn loolu danañ ngeen ni ko doo waxee ci bureau bi nga xam ne tey première daayira biñ njëkk a taxawal ci jamono ak kippaaru Cheikh Mouhamadoul Moustapha bureau na ko Serigne Cheikh composé boo demee da ngay gis ne li tàmbalee ci njabootu Mamor Jaara ba ci Serigne Massamba kenn ku ci nekk sab xalifa maanaam membre la ci bureau jiite sax benn commission ci commission yi nga xam ne ñoo composé bureau boobu waaye nga gis ne seexi yoon wi itam muy ñeent fukki góor yàlla njëkk a jaayee tamit xaadima rasuul ñoom itam ñoom ñëpp ay membre lañ ci bureau yooyu waaye la ci gën a yéeme mooy kenn ku ci nekk nag wàll ga nga xam ne sa xam-xam ab sa yëngutu ak sa taxawaay ci la gën a màcc foofee fa lañ la tànn nga jiite fa walla nga ànd fa ak ñi jiite ngir boole njabootu yoon wi d'abord mu nekk benn tur wii di ittihaadu atbaa'il xadim li taawun wa tamasuk bi diin te ñëw gannaaw bi feddili na loolu waaye bi mu noppee it dafa xam ne liggéeyam rek yëmut ci loolu foofu la war a tàmbalee waaye wërteyam foofu sunu mag sëriñ Maodo Touré wax nañ léegi téere bi nga xam ne moom la bind ci sëriñ Cheikh muy téere boo xam ne ñun ñu yaroo ci kippaaru sëriñ Cheikh sax référence la ci ñun moom a wax ne ma ña téere bi ñetti référence rekk la way juram sëriñ Mouhamadul Haadi nijaayam alxaaji Abdul Aziz Dabaax ak moom jëmmi boppam muy lim dund ak Serigne Cheikh nee na ma bi mu koy bind am na jamono yoo xam ne mu fekk nijaayam Cheikh El Hadj Abdou Aziz ci jagsaaw mu ne ko fii nga ma fekk dey ak li la tax a jóg mbóot ak baatinub sunu borom dugg na ci ne ko ndax mboolem garab yi wër kërug jagsaaw gi yépp day buñ yoran aw làmmiñ yu nu yor di seede kenn ku nekk rek dana la mën a seedeel ci lii la tax a jóg ndax amul fi genn garab goo xam ne sëriñ Cheikh mosuma faa fekk te la ko tax a jóg du dara du dul luy boole julli ci réew mi mu nekk ñu nekk benn ñuy fabandoo di tegandoo di nasandoo di noccandoo ak lépp loo xam ne comme ni ñu ko waxee lu ñuy may indépendance ci lépp ba kenn ku nu wër yilif wala war noo jëmale fu ko neex du nu mën a jëmale fu ko neex loola kon doon seede ci nekkan taxawaayam kon ci boole julliti réew mi mu nekk benn waaye ba mu ca jóge it mu teg ci nag boole julliti àdduna bi mu nekk benn li nga ci wax professeur Salih Salaam wax ko ci ci diggam ak Muhammadul Xaamis ak lañ seq ak seeni jataay yépp diggam ak waa Égypte diggam ak waa Kuwait diggam ak waa Arabie Saoudi loolu lépp dafa nekk ay màndarga yoo xam ne firindeel na loolu lu aju ci eh, li ñu doon tudd muy conseil supérieur bi ama am na koo xam ne ci ñuy war a jox seede la muy Cheikh Omar Ñaan muy seede boo xam ne mi ngi ko jële ci ustaas Ibrahima Mahmoud Diop enregistré woon ko sax ci wax bu mu déggan ñu di ko wax ci ni ñu sose loolu mu ne juum nañu de wax bis ak waxtu wa sëriñ seex taalee otam ñëw fekk seexal islam alaaji Ibrahima Ñas ca la loola bu jëwee dana ci àgg kon loola di wane taxawaay bi nga xam ne kon aman na ko ci wàllu googu mu mel ni kon lu yaatu la waaye li nga xam ne moom la ñuy tëjee mooy li ki nga xam ne mooy sunu rakk tàmbalee woon te amit ku ko bind fii tey muy professeur Malick Ndiaye junj na ko fii ci kayit gi xëy na su yàlla joxe kaddu bam maye kaddu bam kii dana ko gën a développé muy ah war nañoo weesu nag kon eh, li ñu war a waxtaane ci taxawaayu sëriñ Seex ci lépp loo xam ne luy boole jullit yi ak yeneen i wàll yi nga xam ne yépp ndax loolu jumtuwaay la ko defan waaye buñ booloo ba noppi nag lu ñu war a def ak nu war a mel loola la ca sëriñ Seex bind wax ko ci ñu waxtaane ko doy na fi mu toll nag lu ci waaye mas dégg dégg nañ ko léegi nag ñu traduire ko par acte fexe nag ba ndax jataay yu mel ni yii alxuraan wax na ko laxat kaana fi qisasihim ibratun li ulil albaab maa kaana hadiisan yuftara walakin tasdiqa la si bayna yadayhi wa kullan naqsu alayka min anbaa'i rusul waaye nag maa nu sabbitu bi fuaadaka wa jaaka fi aasi alxaq wa mawisa wa dikra lil kon góor yàlla yi wees wan tàmbale ci yonente yi ba ñuy ñëw seen gannaaw solos waxtaane seenub dund ak seenub liggéey mooy bind yañ ca war a mën a jële pour jariñoo ko ci lu ñuy dund nun kon dafa jot nag lii sëriñ Seex bëggan ak lim bind bàyyi fi ak nun ak lim jëf bàyyi fi nun ñu sukkandiku ci nag lenn lu ci nekk nag nu fexe ba jëmmal ko nag loolu mooy sunu a parce que aw sas la wu rëy ci nun aw sas la wu rëy ci nun te yaakaar naa loolu mooy li war a jur ndax sëñ Cheikh la war a def lépp def na ko ni mu war a na mel lépp mel na ko faggu na it luy tax nu war a mën a def nu ne li nu war a def war a mel ni war a mel léegi nag kon noo ci des nag kon nu war a góorgóorlu nag bu baax a baax ci yoon la mu fi rëddan ñu war cee taxaw kon nag comme waxtu wi dafa euh, euh, daf noo dab te nu am suñu kilifa gu mag bu nu yàlla baaxee mu ñëw nag bàyyi ko fu sori ci ay coono yu méttee métti lan yëg ne moom la toggoo waaye bis bi ak jëmmi bis bi ak njabootu bis bi jaral ko mu bàyyi lépp ñëw ànd ak noonu muy Cheikh Mamor Mbacke mu dul Mamadou Mortada fu soree sori la bàyyi koo ñëw fii kon nag loolu rek dafa ciy dolliku ba du nu war a tey mën a xaabaabal ndax il faut nu sàmmoonte ak loolu te moo tax kon noo yemale fii kàddu gi rahmatullahi taala wa yi ngeen di wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam di jël nuyoo bi yépp nag di ko teg ci loxob seen Abdourahman Mbàkke mii toog nga xam ni tey ji moo fi toog toogaayu suñu maam borom Touba yëpp jaare ko ci suñu maam Serigne Cheikh Ahmad Mbacke Gaynde Fatma jaar ci magam di sëñ Abdul Fattah sëñ Aliou ba ci suñu maam sëñ Modou Moustapha Mbacke ñëpp waaye tam di ko àggale ci mboolem ñi nga xam ne ronu nañu tànt bi muy suñu nuyoo jëmm ju ñàkk solo ji di ko nuyu itam mbooleem kilifa yi xam ñu ngi ci biir tànt bi ñu ciy seen suñu kilifa sëriñ Mamor Mbacke moom suñu maam sëñ Mourtala Mbacke ak ñi mu feggoon ci ay kilifa yépp euh, sëñ euh, Abdoul Hamid si suma juumul bu bu sëñ Aziz Al Amin ak sëñ Abdoul Ahad bu sëñ Gaynde Fatma daanaka duñu mën a lim ñëpp waaye dañuy wax rek ni daanaka li seen xaadim si la jot wax ba àgg ci li nga xam ni mooy suñu jëmmal suñu teew ñu ñii di wax ak yéen te mooy suñu way jur wu baax wa suñu kilifa ga suñu baay suñu sëriñ sëriñ Maodo Touré yàlla na ko yàlla yégal ci àddina yu kawe nga xam ni ku ne dégg na diggam ak suñu maam sëriñ Cheikh Gaynde Fatma ku ne dégg na diggam ak suñu baay wala sax suñu maam sëriñ Mbacke soxna loo ba ci njabootu tayam di toog nga xam ne bis bi tey jii bu ñu ko ci bu ñu ko ci dara jaalee loolu defe naa ne li arab naan laa xarwa doyul waar ci cause bi nag danañ ci ñëw tuuti li arab naan maarifatul asbaabi muinatun ala tawili balaa boobu rek ñu leen di xamal ni ñun ñi man mii di wax kàddu la goo xam ni bokk naa ci gën a ñi gën a ñi gën a feeti ndaw ci ñi ñëw di yëkkati kàddu doon naa sax jéem a seet nuñ ma ko wuutale waaye kilifa yi ni ma naa leen ko waxal ma di ko wax kon ci turu ki nga xam ni tey jii moo jiite wafdi bii ñu àndal muy imaam sëñ Abdallahi ture moom Serigne Niass Touré moom sëriñ Maam Cissé Touré di imaam ca jumaa yi Yoof waaye itam sëriñ Ahmad sëriñ Mor Touré moom sëriñ Hadi Touré ak tam ki nga xam ni tey jii moo fi toogal sëriñ Maodo ture yal na yàlla jàppal ko yal na ko yàlla téel ba mu àggale la bàyyam doon yéene ak li muy jafe yëpp yàlla mën na ko yal na ko yàlla def muy sëriñ Abdourahman Touré mi toog ak mbooleem ñi nga xam ne ànd nañu ak moom dale ko ci sëriñ Maodo Fass Touré ku ñu wax sëñ Mouhamadul Amin mbay nga xam ni sëñ Maodo ture moom la fi daan yebal. sëriñ Haadi Touré mii di wax ak yéen moom sëriñ Cheikh Touré moom sëriñ Haadi Touré sëriñ Maam moor Mbàkke muy wóllëre ci sëriñ Ahmed moor mii toog nga xam ni moom sëñ Ahmed léegi mi ngi may wax digganteem ak sëriñ yu Mbàkke nga xam ni ci dëj ba woon Tiwaawoon sëñ yu Mbàkke si boppam yëkkati na kàtt jox ñu ko ma ak sëñ Ahmed di ñu wax bis bii maa ngi koy laaj léegi ñu ni ma yaram yi moo kii yal na yàlla féexal ko muy ku baax moom it wax dëgg yàlla. moom diggam ak sëñ Ahmed mi ngi ma koy wax léegi fu sori la seen diggante sori na lool moom sëñ Ahmed Touré mee toog te li waral seenu xame mi ngi jaar sëñ Mamor Mbacke mi nga xam ne daa war na bokk ci ñuy gàttan waaye daa bokk ci ñun ñi nga xam ne ñoo ñëw far te loolu lépp li ko waral mooy lu rafet rek waaye itam ñu ànd ak euh, sëriñ Fallou Ndiaye ca Thiès doon wëllëre bu mag si sëñ Maodo Touré ànd ak tam ku ñu wax sëñ Manoumbe Ndiaye ànd ak sëriñ Cheikh Tidiane Ndiaye sëriñ Bàcc Diop sëñ Màggat Diop daanaka bu ma leen dee lim mën nañoo jël ci waxtu wi dara ñun ñëpp ñoo ñëw jëmmal sëriñ Maodo Touré ci bis bii nga xam ne dara jaale nañ ko ko waaye li ma wax léegi ni doonul lu doy waar ndax sëñ Maodo Touré ku ne dégg na ko suñ Maodo Touré ku ne dégg na ak mbaaxam kon bu amee lu mel nii tey doonul lu doy waar sabab si nag li ñu naan maarifatul asbaab yi bokk na ci lu sori xam ni. man naa wax ni sax jiitu na ko lu yàgg te muy li ma ciy njëkk tudd mooy li ñuy wax al beneen bi ci topp mooy li ñuy wax al al musaahara beneen bi ci topp mooy li ñuy wax as sadaqatu wa tazawur ndax loolu moo koy dundal uxuwa gi ma nga dalee ca maam Maara Mbàkke umpulewu leen ni maam Maara Mbàkke mi nga xam ni moom mooy maami suñu maam Borom Touba jaar ci maam Balla Aysa maam Mor Anta Sali ba ci suñu maam borom Touba moom maam maaram moom it moo mel ni maam Thierno Farimata mu mel maam Mati maam Ousmane maam Hadj Malick maam maaram moomu mooy meññ ni ku ñuy wax soxna Mbacke Awañeng mu mel mu mel ni Amadou Faat Jaxate mu mel ni Amadou Gurel Jaxate Amadou Gurel moomu mel ni Faat Jaxate Faat Jaxate maam mel ni maam Cissé Touré mel ni sëñ Aadi Touré. sëñ aadi aw ko ci waneen yoon ndax sëñ aadi xam ngeen ni waajuram wu jigéen moom la ñuy wax soxna mbàkke jaxate moom xaalima jaxate kala kon sëñ aadi ñëw na ci ay yoon ni nga xamee ne maam abdu ñëw na ci ay yoon ci maam maaram maanaam ñoom daal mbokk googu moo leen boole taxoon nag musaahara juddoo woon ci maanaam ak gorolante ku nekk xam na ni rakki sëñ aadi Touré jënd ndox soxna Absa Touré moom lañu jëloon jox ko suñu maam sëñ Modou Moustapha Mbàkke mu am ca njaboot goo xam ne tabaarakallaahu ña nga tey jii Daaru Xuddus mën nañ caa lim Serigne Cheikh Mbacke moom soxna Waalo moom suñu maam Serigne Saliou Mbacke ak i rakkam yëpp ak yeneen njaboot ya nga xam ne ñoo fa noonu it la ñu mën a maa maa ngi tudd léegi sëñ Maam goro gorolent gi yemul woon foofu suñu maam Serigne Mourtala Mbacke xam ngeen ni moom it noonu la ñëwee Fass Touré jël fa soxna suñu wax soxna Ndey Touré di doon ci suñu maam Nazir Touré rakku suñu Hadi mu am ca njaboot muy Serigne Abdoul Aziz Mbacke mi nga xam ne ñëpp dégg nañ ko yàlla moom ko bu yàggul keroog ca jotaay ba ñun ñii la ñu yabaloon ñu dem ànd ak sëñ Mamour ca Touba taxaw lépp moom it mu taxaw ca taxawaay bu rafet. loolu lépp laa wax ni uxuwa gi moo jiitu woon waaye li ci toppoon mooy musaaxara gi te defe naa koo dem bay joxanteeg moom ay ay ay njaboot ak i soxna kooku defe naa sori ngeen. waaye bu ñu ca yemoon rek mën naa bañ a dund bu baax waaye li ko gën a dundal mooy dañ koo dundal ci ak sadaqa ak tazawur sadaqa mooy xaritoo ak amitié mbokk gu nekk day am xarit waaye tam tazawur te mooy ak demlante demlante gi mën naa cee wax tuuti rek te moom moo indi sadaqa gi suñu barki dem rek maa ngi leen di jotal ni yëpp suñu pap Abdoul Aziz Touré moom mi nga xam ne tey jii mooy xalifa suñu sëñ Maam Haadi Touré ca Faas démb laa jógee Faas barki dem ci guddi laa dem ziyaare ko di waxtaan ak moom moom sax moom ma njëkk a tudd ni ma dégg naa ni dañuy waa kër sëñ Cheikh dañuy am euh, cérémonie bu ñuy def ca Ndakaaru dara jaale ko Serigne Maodo Touré moom moo ma ko wax ma ne ko ah, dégg naa loolu sëñ Aliou Mbacke wax nañu ko man ak sëñ Ahmed doon sàkku suñu teew mu lu ko mun ma ah loolu de rafet na lool mun ma loolu de rafet na. ci kaw loolu la ni ma bu ma ñëwee naa jotal nuyoom akuk rafetloom ci li nga xam ni defal ngeen ko sëñ Maodo Touré waaye doyut waar may wax ni. ci demlante googu nga xam ni moom moo waraloon lu mel nii sa mbaam Abdul Aziz wax na ma démb ni ma euh, sam sama sama sa maam Modou mustafaa mu mag ma wax daana wax sëñ xaari ni ko danaa ñëw faas Touré seet si la bu boobaa ñëwër Fass ñëpp ña nga xam ne ay ay ay taalibe lañu danañ ànd teertu la nga xam ni am nga fa ay mbokk am nga fa ay nit yàlla dogalu ko ba mu génn àddina ginnaawam waaye nag loolu Serigne Cheikh moo ko topp dundal ko ginnaawam ci diggante sëñ Haadi Touré ak ak ak ak Serigne Cheikh ba ñëpp xam ko mu doon lu fës lu ñëpp xam sëñ Haadi daan dem Touba Touba ak Taïf lu baree bari di ko dundal waaye sëñ Cheikh Gaynde it di ñëw Fass Touré lu baree bari di ko dundal sëñ Haadi sama bàjjan soxna Ndey ture mi nga xam ne moom la suñ maam sëñ Mourtala yore woon nett li na ma boppam nee na ma bokk na ci. Euh, li mu ba moom nga yaroo Touba ci suñu maam soxna sax ma nga xam ni moom la suñ sëñ Ibra yore woon nee ma bis sëñ Haadi ñëw na fa di seet si Daaru Xuddus di seet si sëñ Mbàkke sëñ sëñ Modou Moustapha waaye nee na keroog tombeek ab taalibeem buy tudd nee na sëñ Modou Moustapha safurla Cheikh Gaynde Fatma tombeek taalibe bu mu tudd waaye nee na ci saasi sëñ Cheikh Gaynde Fatma daa jël tur wa tudde ko sëñ Haadi Touré noonu it la sëñ Cheikh daan jógee Touba di ñëw Fass Touré sëñ Modou Fass Touré mais ñu dend nett na ma yoon woo xam ne ba nga xamee ne ñoo na Fass Touré di seet sañaar yi nee na booba ay tuut tànk leen am na yoon woo xam ne noonam nee na booba seen kanam ma nga toog maanaam loolu kon doonoon na loo xam ni daanañ ko dem lente bu baax a baax a baax a baax loolu nag moo continué woon ba agsi ci li sëñ euh, sëñ xaadim doon tudd léegi ak conférencier bi sëñ Lo ci li nga xam ni moom moo nekkoon principe bu sëñ Cheikh ak bëgg-bëggam ci ittihaadul muslimin maanaam ni mu bëggee woon jullit ñi doon benn takk da nga xam ne moo doonoon yitteem moo doonoon xeexam suba ngoon ku xam sañ Mbàkke soxna loo ku xam saxulaa ku xam sëñ Moodu Moustapha ba ci sëñ Mbàkke soxna loo xam ne yitteem jëpp dundam gépp principe am yëpp moo doonoon ñu dindi fële teg turu kii lii la kii waaye ñu doon benn say muy sayul islaam loolu ci la doon dund àddina ak alaaxira laa wax ne sëñ sëñ sëñ Cheikh Waalo mi nga xam ne mooy doom sëñ Ibra dem naa seeti ko Touba ñu toog muy waxtaan ak mu ni ma sëñ sëñ sëñ Cheikh Gaynde Fatma day mook sëñ Haadi Touré bokk nañu def benn wasiqa benn accord boo xam ne lañ ca bind mooy dañoo fas yéene seen dund bi ñu jeexal ko ci dox lu benn la jullit ñi ak tarixa yi nga xam ñoo ci réew mi nee na loolu bañ ko bindee ba pare dañ koo dañ koo signé kenn ku nekk dafa signé ci sëñ Haadi ak sëñ Gaynde Fatma loolu nag wane na ni jot na nag li sëñ bi wax léegi ni sëñ Cheikh Gaynde Fatma histoire jox na ko raison jot na léegi nag ñu xam ni jullit ñi lenn rek moo leen moo leen jig te mooy ñu doon benn may joxe foofu benn kii bu gàtt rek balaa may daaneel maa ngi déglu barki démb ci oto bi sa maam Abdul Aziz Sy Dabakh radiyallahu anhu muy wax visite bu mu demoon ziyaare ji ko sëñ Modou Moustapha ca Touba xawma ca Taïf en tout cas wax na ni ba mu fa jógee bi mu ñibbisee ci saa si tubaab yi dañ ko ndar Saint-Louis nee na gouverneur da ko woo nee na bi ko gouverneur woowee ba mu ñëw nee na daa wéet ak moom nee na ma nga ànd ak sëñ Saïd Nourou Tall nee na da ko ni damaa dégg ne da ngaa demoon Touba seeti sëñ Maodo Moustapha maam Abdou nee na ma ne ko ah loolu koy am na mu ne ko dégg naa jox ne la xaalis maam Abdou ne ko la ma jox moo gën xaalis ndax loolu mooy wax yàlla ji nga xam ne moo ma may nga toog fii janoog man doon góor góornóoru tubaab France yi ak sa doole ji nga yore ngay wax loo xam ne àndul ak yoon ma dindi ko sànni ko fële loolu la ma jox te loolu mooy kaamilu alquran nee na loolu kaamilub jëmmi reer la woon waaye li ma bëgg a wax foofu rek mooy kon ndekete jullit ñi wala turuq yi wala jamaat yi ci réew mi seenu soriyaantoo léegi-léegi am na lu nekk ci ginnaaw loolu kon jar naa bàyyi xel bu baax a baax a baax kon léegi jot na ñu ñu ñu yeewu nag te xam ne am na ñu ne suñu ginnaaw ñoo xam ne dañuy dox rek ci loo xam ne da koy nu mu tuddati waaye alhamdulilah lii di xeeñ wane nan yaakaar naa ne léegi ñu retrouvé wu xam ne ñoo bokk menn mbir ñoo bokk lenn te mooy yàlla li ñu boole moo gën a bari te mooy alquran li ñu boole moo gën a bari te mooy sunna li ñu tàqale moo gën a néew bu ko defee loolu jot na sëkk ñu delloo siwaat ko nag te xam ne ñun ñëpp benn lañ bu ko defee ñu ànd ñun ñëpp nag daal di takku daal di xeexal lislaam doon wenn say ñu mën a am ndam loolu daal mbokk yi doonoon na loo xam ne xam naa waxtu yi mayuñu ko waaye kàddu gi bett nañu ñaareel bi euh, ñaareel bi ñaareel bi mooy euh, heure bi heure bi xat na waaye wax dëgg yàlla seede la yoo xam ne rek bëggoon nañ koo seede ci turu ñu nu àndal nga xam ne ñu ngi koy seedeel sëñ Maodo Touré nga xam ne ku ne xam na mbaaxam ku ne Sénégal ku ne yaakaar na ni sëñ Maodo sëñ Maodo sëñ ma moom ndawalu guddi la alhamdulilah lii yelloo na ko ñu ngi rafetlu bu baax a baax a baax liggéey bu mel nii di wax ni daal la suñu maam Serigne bu tuubaa waxoon rek laay waxaat wa man araadal wusula lil jalili falyattabi bi sunnati rasuli rek topp rek sunna di si des yëpp nga teg ko fële te jàpp li boole mi alquran sunna bu ko defee ci kaw loolu ñu ngi delluwaat xalifa bi nga xam ni moom loolu mooy initiative am loolu mooy bëgg-bëggam su ngoon muy Serigne Sidi Mokhtar Mbacke yàlla yàggal ko fi bu baax a baax a baax moo moo wëllëree moo xaritam ba Serigne Abdoul Aziz Al Amin ak mboolem xulafaa yi fi nekk wax dëgg yàlla nii ñu tàmbalee at yi ñu weesu. tabaskeendoo woorandoo yëgoo bennoo lii daal moom la noonu yi ban te moom moo ñuy arrangé yàlla nañ ci yàlla saxal w wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu di leen xamal ne itam sëriñ Abdou Fatah Mbacke moom sëriñ Cheikh yàlla na ko fi suñu borom yàggal te wéral ko njabootam gépp teew nañ mu Moustapha Mbacke moo jiite woon délégation bi fi ñëwoon démb soxna Seyna bu moom kenn du ko sant ndax ni mu nekk ci gannaaw ay bàjjanam muy soxna ndey nekk ci gannaaw ay magam muy soxna ami ak ñooñu loolu doy na sëkk ànd ak sëriñ Xaadim Louga moom sëriñ Mbacke ci li nga xam ne moo jëm ci lépp luy administration ci wàllu fédération bi. waaye itam sëriñ bi mi ngi beral cant soxna Faati Xari Lo moom sëriñ Mbàkke soxna loo ci ay taxawaayam moom day ab ab goppam mësu koo rocci bi wilaaya bi door a tàmbali ba jonn yàlla tey Pastef ba mu doon doxee daf ko yokk waaye dara wàññiwu ci sëriñ bi mi ngi lay ñaanal suñ borom sàmm la wéral la yaak waa wilaaya femme yëpp ngeen ànd ci gannaaw soxna day Fatma Mbàkke ak i magam ak i rakkam ba ñoom ñëpp. li sëriñ Cheikh bëggoon ci liggéey bi ñu am ko te te ngeen bokk ci ñi mu ñi loolu di jaare waaye ñu leen xamal ne it ne sëriñ Abibu Mbàkke moom sëñ Fàllu Cheikh Ahmadul Badawi ak sëti sëñ tubaay yi ñoom ñëpp ñëw nañ fi démb loolu day firndeel rek ne jotaay bi li sëriñ Cheikh doon wootee mooy booloog jullit ñi loolu julli yëg nañ ko mbokk yi yëg nañ ko kenn ku nekk def nga ci li nga ci war a def ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci turu ci turu sëriñ Abdourahmane soxna Mbodj Lo mi nga xam ne itam mooy présidente wilaya femme bu Dakar te ñuy defee événement bi fii ci Ndakaaru sëriñ bi nee na gis na ay taxawaayam gis na pastéefam gis na itam waa wilaya dakaar soññ gu nga xam ne waat nañ ko ci liggéey bi ànd ko ak soxna àll yu Mbacke soxna Assou Mbacke ak ñoom ñi ñi leen di jàppale ñëpp ndax suma ma limee damay juum wax dëgg yàlla daal sëriñ bi ay cantam euh, lim ko bëgg a waxee lépp mënu koo jot li ndax jotaay bi dafa xat. waaye nag kenn ku nekk yëg ne la ngay def agsi na ci sëriñ Abdourahmane te lu agsi ci moom dana jàll ci kilifa yi te bu jàllee ci kilifa yi liñ ci bëgg lépp danañ ko